asalaamaaleykum yéen mbokk géewul asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xam ci yéen ay baaxu di seetaan ak TV tey di jëlu naar ñëwati na ak émission bi naa kenn ku ci nekk maa ngi koy ziar nga xam ci ziar bu sell la na rek nee naa leen wa rahmatullah taala wa barakaatu di bëggee képp koo xam ci yaa euh, bi ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee bu a baax suñu kilifa diine yi ku ci mel nga xam ci ñoom ñooy xaadir yi laayeen yi tijaan yi murid kenn képp ku ci nekk dugg nañ sa biir kër di la ziar ziar bu gën a sell ci ziar yi ba tax rek nee na la di julli naa la maanaam mi ngi fi nga xam ci moom mooy géewul fu ne lay dem groupe bi ñu koy tuddee sopp sëriñ falu bu géewul la nee naa la kooku yi nga xam ci moom mooy Alé nekk ci bopp bi di def lu mucc ci ay di def lu yéeme Alé ñoo lay nuyu waaw maa ngi leen di fay ale bay na nga def ak eh, jakarlo tay tey suñu askan bi gars nga xam ci ñoom ñooy seetaan Gueoulart TV nga fasiyene leen bégal tay ji ci mel genre xawaare mm-hmm. ana affaire bi nu muy demee nan nga leen di nuyu ñoom ñi assalamu alaykum géewul wa géewul mm-hmm. sax ndax eh, fi ne instant bi fi ne ni géewul ndax fi la judo fi la màggee mm-hmm. pour te dire manam fi la sama soxna dekk sama njaboot fi la nek wa ma leen di nuyu di leen gërëm bon di laaj kenn ku nekk yaa ngi sa jàmm ak sa jàmm yaram mm-hmm. waaw kenn ku nekk yaa ngi sa jàmm ak sa jàmm yaram may wax rek ni yéen ñi ngeen xam ci yéen suñu mbokk site internet yi ñu ngi leen di bu baax a baax di wax ni képp koo xam ci yaa ngi bëgg a bu ko defee notification rien que pour nga am lépp loo xam ci ñu ngi koy jokko fii nii ak yéen ba tax na rek balaa ñoo dugg ci waxtaan di ci ko suuti allez ñu daal dugg ci seen premier morceau bi nga xam ci yéen ngi ci way ku tedd kii Cheikh Amadou Bamba Mame xalaat maam Bamba waaw xam nga àlla Bamba euh, sëñ Bamba fi mu ne bu ñu ko waxee. Mhm. adduna sépp dañ ci dañuy veillé li nga wax di xool di déglu li ngay wax mooy lan. Mhm. ndax it nit la koo xamante bi nii dafay def lu kenn deful. macha allah waaw muy nit ku baax nag. Mhm. di koo xamante bi nii lépp lu waay di def. te boole woo ko ci néew ma néew ma du du du du saf askan wi waaye bala moo saf askan wi dana xaw a yeex daal <laughs> da dul saf kenn sax waaw voilà macha allah waaw noonu la macha allah ba tax na rek ñu daal yi ci kaw seen bi nga xam ci gars yi ñu ngi ci yéeg di préparé wu su ko defee ñoom ñu bàyyi aale mu ànd ak ñoom ñu ñu dóor suñu suñu kii bi te daal di del si waat waaw jaajëf waay Mambamba, Mambamba, Mambamba, la la la, Mambamba, the but I jaajëf waaye ale ale affaire bi macha allah. Ah. ale Cheikh Bamba ni ngeen ko neex na lool macha allah mais inspiration bi nan la ñuy dikkee. inspiration bi man ak samay ndaraw. Hmm. xaadim hmm. nga xam ne danoo di toog di naan ataaya nii mu jékki-jékki nii mais ale lii buñ ko woyee est-ce dana jàll dana jaar yoon. ma ko sëñ Bamba loo ci woy day neex. macha allah ndax moom da ciy participer waale. Hmm, macha allah ndax ñun ñi kër sëñ lan kon mom dum tay di way ci moom. macha allah te it assuré nañ lu nu way ci mom day neex. Mhm, macha allah waaw. ñu and ak nak turondom mam khadim mam khadim waaw. ba ba tay nak ni di wax rek ni euh, groupe groupe sop Serigne Fallou bi. Mhm. ana groupe bi nan ngeen def ba former groupe bi manam nan ngeen ko xalaté ba ba defal ko dal waaw xam nga groupe bi day groupe bu xamanteni ni dafa mhm. euh bëgg di di évoluer. ci côté musique ci côté musique bi. waaw ñooñu toog nag euh, avant tout nag damay remercier sama copain Ndaraw. Mm-hmm, nga xamante ni fu ma jëm ñooy ànd. Mm-hmm. ba daanaka ñëpp xam na. waaw ñëpp xam na. Mm-hmm. même bu ma ab damaa am naa groupe sax Louga mais du tee heure bu ma ni koo jugal mu jug. mais géewul moom maa ngi moom ñoo fi baas ak sunu copain xaadim ñi nga xamante bi nii xaadim nit ku baax la moom it. vraiment day nuy woo ñu dem këram mu toog.

ñëw defaat fi deux mois dem Suisse benn festival jóge waat Suisse ñëw fii defaat fi trois mois Sénégal dem Italie jàll Espagne mm-hmm. ma dem Espagne nag resté mm-hmm. ñu yor fa groupe mm-hmm. ma xaw faa diire nag xam nga rek def naa fa ay huit ans yooyu yu tegal quatre mois ñoo xamante bi ni vraiment ci art bi ci musique bi laay yëngu waaw bi bi ngay dem voyage yooyu dafa am groupe boobu ko doon ànd ak ñoom wala. waaw cercle de la jeunesse cercle de la jeunesse. waaw cercle de la jeunesse. yow koo fi koo fi wax rek xam na ko. waykat nga fa woon wala fecc. waaw man damay doon yooyu damay fecc damay tëgg sabar damay tëgg jeu bongo. Mhm. macha allah waaw loolu lépp dama ko doon def foofu. Mhm. waaw. bon comme que da nga ko doon def foofu xam naa ne waxtaan bi dana gën a neex. ci biir ba tax na rek damay nii comme que temps bi duñ ko may. Mhm. damay bëgg ñu duggaat ci suñu bi. li nga xam ci corona ngeen ci waaw acca waaw mën naa te xam mooy lëmbe jamono waaw mooy lëmbe ji a waaw corona bi moo lëmbe jamono ji ndax fi mu ne nii groupe koo fekk groupe boo fekk mu toog ci loolu la ñuy ci loolu la ñuy wax géwél yi amatuñu fu fu jëm ndax it euh, vraiment fi mu ne nii ñun danoo amoon euh, ay programme yoo xamante bi nii chaque instant dañuy woo ay programme ñu dem di jouer ji di dem di ñëw. Mm-hmm. mais instant bi ñu toll nii amatuñu fu nu jëm. waaw looloo tax nag képp kuy artiste boo génnee cassette rek mbaa nga génnee benn single rek. fokk nga def ci nga woy ci corona. ndax ah, corona dafa la dafa lakkale waaw waaw non moom dafa war a ñibbi nag. Ah, yow corona nit la wala lan la. Ah. nit ku dëgër bopp dëgër na bopp da xam naa ne moom waaw bu ko defee ñu daal di yëg ci suñu kaw gi studio daal di dem jël li nga xam ci ne moom mooy le hmm. corona daal di dellu si su ko defee rek ñu dem di demaat ci kaw waaw incha allah ñu dégg acca jaajëf waay billaay macha allah way ngeen way bu am solo ci corona. tey mhm. neex na macha allah mais yan matuwaay nga ngay wax nit ñi nañ ko jël bu waaw waaw waaw matu way yi nga xamanteni bi ni danaka mom lañ dégg eh, nit ñi diko wax gaay diko wax da nga wara rax sa loxo. Mhm. Ah, bu nu bu nu bari lu ñu joxante loxo. bo en même temps da na wara masque mhm. et cetera en même temps liquide bi dañ ko war di utiliser. waaw sel bi xam nga xam nga xam nga xam nga loolu lepp loolu lépp dana metti nag ci ñun. ndax ñun nit ku ñuul. Mm-hmm. bu ñu sañoon fu ñu fekk ah, ay ay ay ay. suñu nawle yi artiste loxo konte loxo fuunante defante et cetera mais nag comme loolu do munta mën naa mën naa ñàkk ba yii passé mhm. ñu jëm ko ñu jëm ko ñàkkal waaw ñu jëm ko ñàkkal waaw waaw non non ñoo poli man nag amaguma sens daje ak ñoom yàlla moo daje ak ñoom waaw amaguma sens daje ak ñoom ndax yow da ngaa baax suñu daana nga suñu suñu suñu lépp nga ale yan yan yan yan projet moom la am ci wàllu musique bi actuellement nii waaw projet yi ma am ci wàllu musique bi daal bon xam nga fi mu ne instant bi ñu toll nii projet nit ki dana xalaat li mu bëgg mais bu ko suñu borom tuddee rek dana bu waree nekk day nekk mais nag nit dana xalaat loo xamante bi ne aussi du euh, suñu borom da ko dogal mais ku soñoon tey ji la nga yëngu fokk nga évoluer ci ba ñëpp di la dégg waaw sens nag it aussi am na ci waaw sens am na ci waaw moo tax il faut que ñuy ñuy ñuy dawal comparaison mm. aussi di di jël lépp di ko delloo ci loxol yàlla te xam ne lu jot yomb. ak damay wax daal ni est-ce que yaa ngi xalaat suñu mairie bi ci boppam xam nga en tant que foofu ñoom ndax yaa ngi xalaat ñu jox la foofu benn chambre. waaw benn maanaam benn benn benn espace bu ko defee nga mën a def say bagages ndax yaa ngi ci def ay. démarches waaw waaw waaw maa ngi ci def ay démarches. mais xam nga dara mënagul la sotti ndax lii ñu nekk nii. waaw mais nag ku mel ne Abdourahmane di nit ku baax nag macha allah. xalifa suñu idool teg ko fi muy nit ku ci dara vraiment man de def des fois Kofi, may woo këram sax de teg man ay un yoo xamante ni vraiment macha allah yal na ko yàlla dafa jàmm ko ko suis un nga xamante ni vraiment suis eh, doomu ngumba ko ci ne Abdourahmane mu ni mu ni nit ku

ñoom bu baax baax ndax ko ko mi jàlloon nga ci monsieur le maire wala bëgg ñoom boo ci nga jàpp parce que nit fii nii nee naa la studio bi kenn moom ko du Alla Wade moom moo ko moom du du Alpha Sow moom moo ko moom kii wul ci boppam ñoom ñoo ko moom xam nga ba tax vraiment nañ rafetaatal jikko yi rafetaatal xol yi ñun ñëpp ñu àndoo boole doon benn nee naa la studio bi studio ñëpp la képp ko xam ci bëgg nga rek jàllale li nga bëgg jàll wala képp ko xam bëgg nga participer ci studio bi ñëwal ñun yaatal nañ la bu baax baax bu ñu intéressé rek amul benn problème dañuy mhm. nekk da ngay bëgg ñoom ba tax nag dama la aare ñu daal di yéegaat ci kaw studio bi ñu ñu son bi naan aduna ah, ndaanaan la lay aduna ko belal ji du yaa te bi nii des fois ñooy nekkandoo ko muy Khoudia Soumaré di nit ku baax di mën a woy nag macha allah di di sër ndongoloo des fois ñu daan ñu daan toog di yenn plateau yi di ko woy mu neex lool nag te mu koy jox gëddaam moo tax man it aussi bu ma des fois fu ma fu ma bëggee fu ma amee programme yenn programme yi rek fokk dama koy woy waaw dama koy woy ci àdduna macha allah en tout cas de toute façon léegi li nga way ci àdduna neex na loolu ba tax na rek encore une fois leen di jaajëfal bu baax a baax ñu toll ñu ngi leen jaajëfal parce que yombalul ngay jël sa connexion di ñu ko jox ba mu jeex taak tey ñu am yéen la ñuy tiitaroo yéen la ñuy béggee yéen la ñuy defandoo ne ba tax na aale dama bëggoon nga jël bongo bi ñi nga xam ci ñoom ñooy suñu abonné yi mhm. nga laalal ma ci tuuti rek ma xool ba xam ana na lay demee parce que ñoom dañu dañ lu jaral lu jaral ñu jaral wax waxal lañu ko wax nos abonnés maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy suivre Gueoul Art TV bi mm-hmm. tuuti rek benn lu ndaw rek nga mayal ma leen man di wéyit naa alfa saw sugg bii biram diggi samba lu kuraan musa sukku samba la ganjuleet maa doon nu sirif waa yoo waay wuleet ñaani ngañ yee gina goyo ye yo jam farib ma

ñun yéen ñu fi tax a toog mm-hmm. yéen rek yéen a tax ñuy def lii ba tax na dama aale mm-hmm. dafa am benn xarit boo xam ci maanaam balaa ñoo duggaat ci sa son mbëggeel mm-hmm. dafa boo xam ci maanaam dafa nekk Dakar Ndiaye jël Diop muy ñu koy wax koddu nga maanaam koddu du tàyyi boo xam ci macha allah koddu dañ lay jaajëfal baax a baax li tax man la xoloon koddu dafay jaay bagage yoo xam ci maanaam bagage yu mujj ci ayib la bagage yu yéeme ay prêt à porter te tabaski bi nee naa la dafa jub si nii sa tokko du mi ngi lay jaay robb yoo xam ci turki la ko jëlee di jaay robb yu baax nee na dañoo nekk ci weer woo xam ci xaalis amul nit ñi dañ leen a tëj couvre bi moo leen kenn demul kenn dikkul mm-hmm. ba tax na damaa jëlee ay bagage yoo xam ci macha allah di ko jox nit ñi njëggu yomb macha allah njëggu yomb lool dama bëggoon nga jëlal ma tuuti rek mm-hmm. wayal ma ki nga xam ci ne moom mooy Kodou euh, Ngom Kodou Ngom nekk fële nga xam ci moom mooy cité impôt et ma ko tuti ci Serigne Fallou tuuti rek. billaay koddu ngoom. ndeysaan macha allah. Ya bëgg Serigne Fallou borom na am am borom du am du am. du jom day dara jay bay jiko kala yor bo ko déggalee bu yaay baaxee bàyyi baax doo mën a bon koddooy koddoo. Eh, koddu ngoom. maa la woy maa la kañ ko du xamoo lu dul liggéey ñax jëriñoo ay yéyéyéy yéy léeleléy koo du na naa la jom day dërëjëy bàyyi jikko kala boo ko déggalee su yaay baaxee bàyyi baax doo mën a bon ko du yaay jaay lu baax fexeel ba yónnee ma ci <laughs> nu nuy waal yéey wuleet ñaani ngañ yéej jamuri joo ko dongom wule gay naa ko yooy yéej yee jam fare mba

ba tax na rek Aly dama naan la léegi dañuy jéem dugg artiste ñu def parce ñoom suñu jeexal émission bi ñu daal dugg rek jox suñu son nga xam ci moom mooy mbëggeel bi ah. pide macha allah mbëggeel ku ko way xam ni moom mooy loolu. Mm-hmm. macha allah li ngeen ci way neex na lool la. ale mm-hmm. maanaam euh, yow actuellement fii ngeen toll nii jiwul kase ngeen di bâché wala da ngeen di génn. dem fu ne non non nag dem bu rek sama copain bi ndaraw amoon na ay doomi ndaay mi ñu xewle woon ndar. avant corona bi. waaw avant mm. corona bi ñu demoon fa toj ko. wax dëgg yàlla ak feneen ak feneen dem nañ fi dakaar non ñun daal dañuy wër rek. ak en même temps ku ñu soxla daal. boo nu woo rek ñu ñu. gis naa ni yéen ngi toj Louga. dañuy toj maa ngi seetaan benn benn émission site internet maa ngi koy wax dara. waaw macha allah gis naa leen ngeen dara. waaw waaw waaw loolu benn mariage la woon ah. waaw loolu moom benn mariage la woon dëgg la. dëgg la mais ana ñi nga xam ci ñoom ñoo soxla groupe bi nga xam ci moom mooy groupe Sopp Serigne Fallou Alé Mbaye nekk ci kanam ànd ceeg Ndaraw ak Xaadim ana ku leen soxla maanaam waaw ku leen soxla numéro téléphone baa ngi fi mhm. bon da jël numéro téléphone bi 77. 77 531. 531 83. 83 91. 91 waaw même numéro bi mooy Tigo bi. boobu mooy Tigo bi. waaw mooy orange bi mooy Tigo bi.

mariage wala ah. waaw yooyu yëpp ci woo daal ñëw bégge leen ko bu baax a baax mm-hmm. ba tax na rek Alé comme que ñu ngi nekk suñu jeexantalu émission ana ngay tëjee lan ngay remercier maanaam lan ngay remercier gars waaw damay remercier sama gars yi ma àndal Xaadim mm-hmm. ndaraw mhm. waaw eh, yow nak ngay nit ku bax quoi mhm. émission bi yag ngam no invité mais xam nga rek des fois dañuy am ay dañ daan am ay programme yo xamé tabini moy lool waaw di sant wangu ma gep machallah waa ngumba gep ndax ay nit ku ay nit ñu bax lan ay nit ñu bax lan nit ñu yiwu fi nek mhm. waaw di leen ñaanal yalla na leen yàlla def ak jàmm wa yalla eh, musal nu ci korolaay ba mu jóge fii incha allah ba nu delluwaat ci suñu yitte waa nag en temps ndax ndax ku la defal lu baax nga wax ko di remercier suñu monsieur le maire Khalifa Dia ndax teraanga jim doon def ndeysaan ah, xam nga bi ma dugg see sànq yaa ngi may wax ni ma may nanu benn caméra bu mag mais nag nit bu la defee lu baax danga koy wax mm-hmm. ndax day dafay day def lu baax ndax bi fi président di yónnee jumtukaay yi nga xamante bi ni xëy bosam dafa yéex a ñëw moo fi jëkk a joxe ceeb waaw macha allah joxe fi xaalis jox moodu moodu yi ñun ñi artistes yi en même temps photographe yi ah ñun sax suñu bos ñëwagul mais xam naa ne mi ngi ci yoon bi di ñëw <laughs> waaw mi ngi ci yoon bi di ñëw waaw day ñëw waaw tamit nga remercier tamit Mbacke Dieng nee la moom dafa ko xam ci maanaam moom moo jëkk joxe ay lumière waaw dëgg la waa xam nga xam nga loolu sax waxoon nga ma ko sànq. Mm. Mbàkke day nit ku yaru. macha allah macha mm. naaru bay àlla. waaw. ndeysaan bu bu bu fi ne bu ngeen dajee woon léegi mu mel ne laa xam ay at. Mm. man tel man téléphone bu ma fa yóbbu def def naan ma tey ngaa tey ngaa teg bi bi da tey jël benn mais nit ku baax la nag nit ku baax la vraiment ba tax na tamit la wax ni maanaam suñu studio bi ñi fi def dañoo bëri mhm. ki ci mel ni Mansour Ndiaye doomu am tañu doomu am tañu faal gi ma xam ci doon wax dëgg la moom Mansour ndaanaa la lépp loo xam ci mooy xeetu micro fii ci studio bi mhm. moo ñu moom moo ñu ko may merci ñu ko baax ndax da nga fay jaar waaw moom it ku baax la mhm. Mansour ku baax la moom maa ngi dégg ay baax baaxam ci dëkk bi Ah, mais nag yàlla mu sugula euh, mu sugula def ñu daje. mais nag maa ngi gis ay baax baax yi muy def ci dëkk bi. vraiment ñu ko waxee mais mais mais euh, mais Mansour. waaw maa ngi lay xaar. maa ngi ci couvre couvre foofu couvre foofu bee tax fi mu ne nii. maa ngi lay xaar waaw mi ngi lay xaar waaw ma ñëw waaw ku baax la waaw ndax nit ku baax nga parce que moom lu ne lu baax lu ne daf ñu ko yéene ndeysaan nee am na ay micro yeneen yoo ko fas yéene jëndal ay bu loo ko nit dee defal teranga ko ko dara kooku a su nit ku a baax encore une fois kooku di bërëm tamit bu baax a baax ki nga xam ci moom mooy kaaw di gërëm képp koo xam ci yaa ngi fii di gëm a géewul nga def ci ñun ak nga bañ a def ñun yëpp la waxtaane bu wax ji rafetee na xam ne rek du suñu mën-mën lu sax lu yàlla lu neex yàlla la bu fekkee na leen loo xam ci def ci dëgg wala lu ci mën doon ñoo ngi tuub tey jéggalu bu baax a baax di jéggalu encore une fois bu baax a baax ci temps bi ngeen bu sañoon la ba tax na rek képp hmm. hmm. seen dernier son bi dama ni lan ngay tàggoo bu ko def ñu daal di jàll ci biir plateau bi ñu yéeg direct wala dafa am kàddu yoo xam da koy tàggoo wala waaw waaw mooy li ma wax rek waaw léegi dama bëggoon léegi nga jàllale wax ji rek après bu ko fi ma bàyyi waaw léegi léegi léegi li may li may li may li may li ma la wax li may tëjee rek mooy euh, benn loxo du tàccu boo demee ba doo mën a taxaw fen di def mu neex ñi sa ginnaaw a tax. xaadima ngi ni toog ndar wa nga nee toog. xam nga macha allah ñu ne ay ku baax nit ñu baax. Mm-hmm. ñoo xamante bi nii siintu wuñu dara ci li ñuy def dañ ko bëgg te yàlla tax. waaw gis naa ay émission yu fi jàllale yoo xam ne macha allah émission yu garaaw la. waaw xaadim mi la même chose gis naa fi émission bu mu jàllale boo xamante bi nii ngumba géppa a mais xam nga xam nga ki lay jàngal ki lay jàngal ki lay jàngal napp. Mm-hmm. xaw ma sax ki lay jàngal ki lay may jën bés bu ne jàngal la nan la na ngay nappe moo gën waaw man bu ma gisee ñuy def loolu def may day day day damay kontaan damay kontaan waaw mais yal na yàlla yokku aar bi mm-hmm. te yàlla defal leen jàmm mm-hmm. ba kenn ku ci nekk la nga yóotu nga jot ci macha allah waaw kooku am la parce que lépp loo xam ko ko woowee de passage na rek encore une fois xam ci yaa mooy que duñu ay professionnel mm-hmm. bu baax a baax aale ñu bàyyi da daal yéeg ci kaw bu ko defee ñu def caay caay ba beneen yoon incha allah jaajëf billaay jali xalamal maama way